dalee nag jàmm ñu ñu xëyandoo yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy génn ñu bi nga xam ne colonel Doumbouya daan na ko fay def Alpha Condé yéen kaay gi ne na lu toll ci trente millions d'euros la ñu fekkee ak Alpha Condé ci ab kofor yéen kaay gi ne na gaay yi nga xam ne ñoo def coup bi mbir mu dañu ko togg ba mu ñor xomm ndax Alpha bi ñu koy teg loxo fekkuñu ko sax mu sol ay yére abbe ñu war rek lan la ma sol gaay yi na ko Alpha ba mun ne naam ñu ne ko solal ay yére te duñu la laal defuñu ko lenn Alpha Condé sol ay yérem good fine yéen kaay gi ne li am ba mooy jamono ji am na ñoo xam ne ñoo ngi def seen i lijjanti ngir jël Alpha Condé daal di koy génn réewum Guinée Conakry yéen kaay gi ne na Félix Tshisekedi mi nga xam ne moo nekk njiitu réewum République démocratique bu kongo di RDC waxtaan na ak colonel Doumbouya ngir nag mu daal di libéré ki nga xam ne mooy Alpha mu mën koy yóbbu RDC waaye nag loolee ñooñu colonel Doumbouya yi dañoo lànk kandaare bañ a bàyyi ki nga xam ne mooy Alpha Condé yéen kaay gi di réew mi nee en tout cas li am mooy coup d'état soo muy tuule dina yeex a jóge ci dëndu Afrique ndax li nga xam ne moom la ñu nemee ko ci diwaanu Mali ginnaaw bi ñu coup d'état Ibrahima Boubacar Keïta askan wa nga xam ne ñoo fa yeewu ñoom ñoo kontaan noonu lool ci li nga xam ne muy coup d'état ba te nag jamono ji li nga xamante ni moom lañ nemee ko ci Guinée Conakry ginnaaw bi ñu coup d'état Alpha Condé askan wa nga xam ne ñoo fa yeewu ñoom daal ñoo jóg nag di manifester wu maanaam di wane nag seen mbégte ak seen bànneex journal bi nee na coup yi nga xam ne daal dañu koy faral di gis askan wa ñoom tey mel ni nag dañ saa ànd te nag ñi nga xam ne sax ñooy journaliste yi nekk ci Guinée Conakry gisuñu benn yoon ñu dal ci kaw ñi nga xam ne ñooy militaires yi waaye nag dañoo gën nag di dugal Alpha Condé yéen a ne na si lu dalee jàllo moom nag daan nay pare jamono ji ngir nag soutenir ki nga xam ne mooy colonel Doumbouya mi def coup d'état bi yéen a kaay ne na mbooleem ñi nga xam ne ay ministre lañ woon ci Alpha Condé ñoom ñëpp tere nañ leen ñu daal di génn réew ma ba pare nag nee nañu leen andi leen li xam ne nag mooy oto yi ñu leen joxoon journal bii di l'info nee nañ ñi nga xam ne ñoo doon garder Alpha Condé am na juróom ñaar ñoo xamante nii rey nañu leen si ñi nga xam ne ñoo ànd ak colonel Doumbouya ñoo def lu ni mel journal bi nee na ñi nga xam ne nag ñoo des ci garde Alpha Condé bi ñooñee tamit nee nañu leen bu leen génn réew ma yéen a kaay gi de la témoin nee na nag est-ce que jotul waa CEDEAO ak waa Union africaine daa di noppi daal ndax ñoom gis nañu ne fii ci déndu Afrique bëri na ay chef d'état yoo xam ne nu leen neex la ñuy saax-saaxee seen constitution maanaam nag ngir na ngar réew ma te nag du ñu dégg benn yoon CEDEAO wax ci wala Union africaine wax ci yéen a kaay gi di réew mi quotidien Assane Samb xëy jël xalimaam ne à quand la fin des coups d'état yéen kaay gi di Dakar Times nee na en tout cas daal ginnaaw la nga xam ne moo xewoon Burkina Faso ak Algérie ak Mali ak Guinée Conakry jamono ji daal en tout cas am na nag ay crainte ci réewum Sénégal Sénégal basculé dugg ci njombe dugg ci musiba ma bokkumba yéen kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu colonel ginaaw ginnaaw réunion bi nga xam ne ni ki démb amal nañ ko nee na daal en mbir mi du nekk mbirum fayanto ab concertation la boo xam ne ñëpp la ñu siy dugal taxawal nag li nga xam ne mooy ab gouvernement d'union nationale ngir nag jubbante li nga xam ne daal mooy Guinée Conakry yéen a kaay gi di Vox Populi nee na am na benn jege ñaa lépp Alpha Condé ab néegru Alpha Condé bu nekkoon ca palais ba di Tibou Camara moom nag dafa bëggoon a génn réew ma jàppee nañ ko ci frontière bu Sierra Leone mu yore lu toll ci six cent mille euros yéen a kaay gi nee na Alassane Dramane Ouattara njiitu réewum Côte d'Ivoire moom nag danoon préparé li nga xam ne mooy ab hélicoptère daal di ngir nag ñu daal di dem fexe nag ba këf ki nga xam ne mooy Alpha Condé daal ko ko yóbbul ndax ab xaritam la yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu coup chaos du troisième mandat moo ko waral ci déndu Afrique yéen a kaay gi di Les Échos nee na ministre yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci gouvernement bu Alpha Condé ñoom ñëpp nag jébbalu nañ ci militaires yi nee ma colonel Doumbouya yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien colonel Doumbouya nag moom nee na daal lu toll ci fukki at a ngi nii Alpha Condé di toroxala askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Guinée Conakry jamono ji nag correction ci mbir mi te mbooleem ñi nga xam ne nag dañu leen jàppoon ci lu jëm ci wàllum politique ñooñu ñëpp ñëpp bàyyi nañu leen ñu ñibbi yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar ñu milliards yi nga xam ne toll na ci 767 milliards te Macky Sall dugaloon ko nag ci lu jëm ci wàllu mbënd mi Macky Sall jamono ji nag daal nay sàkku ab audit ñu daal di koy càmbara la 767 milliards yi ana fan lañ ko dugal journal bi nee na soobu na ca ndox ma ñi nga xam ne nag ñooy waa inspection générale d'État ñooñu la Macky Sall sant ñu ubbil ko ci ab enquête yéen a kaay gi de Le Soleil lu jëm ci wàllum nag njëg yi nga xam ne état bu Sénégal wàññi na ko bëri na ay commerçant agent yoo xam ne respecté wuñu ko yéene kaay gi di Walf bi bindee ndax nag xam ne daal ñoo yëngatu ci wàllum njënd meeg njaay mi ñoom lànk nañ ba tëdd sa naaj waa nee nañu njëg yi daal duñu ko wàññi tey duñu ko wàññi ëllëg ndax mënuñoo jënd di jaay di perte yéene kaay gi de la sa ñu xëy fekk fa baax Barthélémy Dias moom nag daat nay woo askanu Sénégal ngir ñu génn ci mbedd mi ajuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax ajuma collectif ñoo lànk dañuy amal ab marche ci place de l'Obélisque Barthélémy Dias na askanu Sénégal génn leen ci mbedd mi ndax na jamono ji dund gi metti na lool yéen kaay gi di libération ak les échos xëy nag ci trafic faux passeport diplomatique am na ñaari député yoo xamante ni ñoo ngi leen siy tudd journal bi nee na ñaar ñooñu nag ay député benn bokk yaakaar lañ ki nga xam ne mooy cerveau bi ngir na mu wut ay cliente maanaam cliente yu jigéen yi daal da leen di jël ñu nekk ay jabaru député maanaam dañ see complot ak député yooyu nag yéen kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar naan ñu dubalees niki démb daal nañu koy jébbal boromam ci